sànq rek mu yëkkati ay kàddu jëme ko ci bokki taalibe yëpp ak fu ñu mën nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ci ndigal loo xam ne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke joxe na ko muy ndigal loo xam ne mu ngi jëm ci bisub dibéer di suba jullik baaw naan dina ko leeral ni ko sëriñ bi indee ci waxtaan wi altine itam muy njàngum kaamil yoo xamante ni buñ ko xëyee dañ koy yendoo di ko defee Touba ci jumaa ju mag ji mu digle ko itam fépp foo xam ne mënees na ko faa def ci biir réew mi sàkku itam jàppale yeneen kilifa diine yëpp ci ndigal loolu ba ci bokki taalibe yi nga xam ne dañu féete bitim réew ndigal loolu sëriñ bi digal na leen ko kon ñu ànd rek déglu kaddu yi nga xamante ni mu ngi tukkee ci sëriñ mu Maam Bousso mi nga xam ne mooy ilimaanu jumaa ji muy liggéey boo xamante ni itam mi ngi ko ànd ak waa raabitatu madaarisul Quraan nga xam ne ñoom ñoo féetewoo wàllu taxaw bi dinañu dégg ci biir kàddu yi nga xam ne moom la leeral ñu ànd teewlu ko ala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu ngeen jàkkaarloo ak ñun ci béréb bu sell bi ci jumaa yu Tuuba ci kanam sang yu sell yi nga xame ni si seen liggéey guddi ak bëccëg mooy alquraanu karim war a xam ni fos yéene nañ leen a jottali ndigal lu bàyyikoo ci sëriñ Tuuba sëriñ Sidi Muxtaar xalifa général kullu murit jaar ci sëriñ Muntaqa Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Bachir ñëw ci Serigne Bachiru Mbakke moom Serigne Touba Cheikh Abdoul Khader mi yore kaddu sëriñ bi Serigne Bachiru Mbakke moom Serigne Touba Cheikh Abdoul Khader jox kaddoom Serigne Modou Mamoun Boussa al imam mu fos yéene yëkkati ndigal loolu bàyyi ko ci Serigne bi jëmale ko ci taalibe yi ak jullit yépp ndigal loolu nag ma ngi jëm ci waa rabitatul madaarisul quraaniya fi Sénégal di kuréel gi nga xamee ni si ñooy moo lëkkale jàngkati alquran yi ci réew mi rawatina section bu Touba kon li ñuy def ginnaaw bu waa rabité bépp teewee jébbal kàddu gi sëriñ Modou Bamoun Bousso al imam mu jot leen ndigal loolu nga xame ni si moo bàyyi ko ci sëriñ bi jaar ci sëriñ Muntaqa ñëw ci sëriñ Bachiru moom sëriñ Touba Cheikh Abdul Qadir te mu jox kàddoom sëriñ Modou Mamoun Bousso bu ñu àggalee jébbal kàddu gi sëriñ Bachiru Mbàkke moom sëriñ Habibu bu ñu àggalee nag jébbal kàddu gi sëriñ Xaadi Jaxate mu leeral ndigal li kon ñu ñëpp ñu maasee teewlu déglu sëriñ Moodu Maamun Busa mu yëkkati kàddu gi ak ndigal li bàyyikoo ci sëriñ bi jaar ci sëriñ Muntaqa euh, jaar ci sëriñ Bachiru moom sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Qadir Mbàkke bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin bi alihi wa sahbi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalul sëriñ sayidil muxtaar almakki xalifatul aam li taifati almuridiya ak ci jawriñu sëriñ muntaqa mbakke ak ci baatu sëriñ Bachiru Mbacke moom Cheikh Abdoul Qadir di ki yore kaddug sëriñ bi maa ngi wax ci kaddug sëriñ Bachiru loo xam ne lii ak jottali la gu bàyyi ko ci sëriñ bi jaar ci sëriñ Muntaxa ñëw ci moom ñu di ko jottali loola moo di ginnaaw buñ ko santee ñaanal ko mu yàgg fi te wér te sama may ko yéeneem ba li mu yéenee liggéeyal borom Tuubaa mu am wér gu mu ko defee te yàgg fi te def ko lu mu ci yéene mu def ko nam ko bëggee dañu ànd koog moom di ko siyaare ci bis bu mag bi ñu weesu di ko ci ñaanal di ko ñaanal ci weer bu mag bi nga xam ne moom la ñu génn ñu ñëpp maase ñaan loolu yi ginnaaw ba loolu yee Cheikh Bassirou wax na ne ndigal loolu yi sëriñ bi joxee tam jaar si mun taxaa ñëw ci moom lañ leen bëgg a ne mbooloo ñi nga xam ne ñooy rabitatu madaris al quran al madaris al quraniya fi fi fi sees bi nekk fii ci Touba Serigne Bassirou Mbakke moom Serigne Habibou ak Serigne Bassirou Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadil nekk ci kanam mbooloo moom ñii la sëñ bi jox ndigal ñu war a jàpp bisub altine bi muy bisub ñaan ñaan googu nag day daj réew mépp ak bitim réew ni ñu koy ñaane ak ni ñu koy defe ak ni ko sëñ bi dañuy bàyyi kàddu gi ak sëriñ Basiiru Mbakke Habibu mu jotal leeral yaatal bu noppee ñu jox sëriñ Qaadi Jaxate moom mu def ci ab taaliq kon sëriñ Mouhamadul Bachir kàddu gaango ko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 rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin asalaamu aleykum yéen bokki jullit yi ci biir réew mi ak bitim réew ak bokki taalibe yi yéen kilifay diine yi jàngkati alxuraan yi ak ñi koy jàngale waa rabitatul madaris alquraaniya ci kilifteefu sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Faadilu gannaaw ba ñu jotee ndigal lu tukkee ci sëriñ Seydil Muxtaar alxalifatul aam li taifatil muridiya yàlla na fi yàgg te ànd ku wér ba àggale mboolem li mu sumb ak li mu naal naalal ko sëriñ bi naalal ko lislaam yéene ko ci jullit ñi moom ñu topp ci gannaawam ak kilifa yi diine yi ak jullit ñëpp ndigal li jaar ci sëriñ Muhammadul Maamun Busa imaam ju mag ji ci jàkka ju mag ji sëriñ bi dinu fàttali nun njulit ñépp lellu ci sun boroom tuubal ku tuub gu sell ak jéggalu ko ngir jafe-jafe ak njàqare loo xam ne daj na réew mi daj na xol yi kap te kenn du laaj lu mu te dara tegunu ko lu dul ñàkk topp ndigalal sun boroom ak ñàkk bay ay tereem te lépp di sunu lor te dara mënuñu cee génne lu dul tuub ak toroxlu ak jéggulu tax sorom sunu borom moo wax ne maa asaabaka min xasanatin fa min allah wa maa asaabaka min sayiatin fa min nafsika loola jot ci xéewal mbaa jàmm sunu borom moo la ko defal ci mbaaxam akuk teddam ak yërmandeem ju bari waaye lépp loo gis mu laal la ci aw ab naka sudut noonu xamal yaa yaa jàdd yoon wa nga waroon a jaar te fitna ak tiis moom yaar rek moo tee mu agsi ci sunu kaw fal hiyaasu billaahi te lenn li sunu borom jël na ko bàyyi nu ak lenn li mooy wa maa kaana allahu li yuazibahum wa anta fihim wa maa kaana allahu muazibahum wa hum yastaxfiroon sunu borom ba nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du ma la du ma leen teg fitna mukk li fekk yaa ngi ci seen biir sunu borom ba jëlee na ko fi yal na yàlla salaatu ala nabi ala alihi wa ala alihi wa sallam leneen li ci des mooy li fekk ñi ngi sax ci di ma jégglu loolu mooy li fi des kon lu nu dal nan fa yéene dellu ci sunu borom tuubal ko te jéggalu ko te lu nu sunu borom teg lu mu tiis tiis ak lu mu jafe-jafe ak lu mu tar tar tar wax nanu nanuy def ba mu teggi ko mooy wa an istaxfiru rabbakum summa tuubu ilayhi wa yaa qawmi istaxfiru rabbakum summa tuubu ilayhi sama aleykum itraaran kon sëriñ bi nee na mu ngi digal mi ngi digal taalibi yépp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu maase ci altine jiinu jëm muy juróom-ñaari fan ci weeru kori suñu xëyee nu maase ci njàngum alxuraan ba ñu sëlmal tisbaar sëriñ bi nee na mi ngi sàkku ci kilifa yi diine yi ci biir yoon wi ak feneen fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ñu jàppale ko ci liggéey bi muy digal njaboot gi ak soññi taalibe yi ñu farlu ci liggéey boobu te ànd kooku toroxlu ak jégglu ak ñaan sun borom mu wàcc yërmandeem ci sunu kaw ndax lii li muy tiis tiis yërmande yàlla la ci nun ndax dafa am fu nu dëgmal foo xam ne bu nu sun borom ba eh, dabaatalul ci yërmandeem loolu mën nañ fa àgg te bëggul nu àgg fa moo tax di mu di nu fàttali bëgg nu delluwaat gannaaw xoolaat sun bopp tuubalaat ko te jégglu ko mu sottil nu yërmande ci ci ci kaw suuf si ak ci kaw jaam ñi ba nu ñëpp xel yi del seet foofu la nu toll kon ñu ngi ñaan sëriñ bi nee na mi ngi ñaan mbooloo mi ak ñi ko sant ak ñi yaakaar ñoom ñëpp ñu maasee defee ko noonu te jàpp na ne bu ñu ko defee noonu ñu ngi ñaan mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ bi nga xam ne amul lu moom muy sunu yaakaar tey ak ëllëg ñu ne ci bérébam bu tedd bii di ko fi ñaane tey def tawasul ci moom te jàpp ne itam ñaan ngi sunu borom ba dana dana ko nangul nee na mi ngi ñaan sunu borom ba sotti jàmm ak yërmande ci biir réew mi ak ci kaw jullit yi sotti ndoxam jàmm ba réew mi ngaan la fenn fu ne ba xel yi delsiyaat xel yi dalaat mën a santaat sunu borom gën jaarafetu cant kaddu yooyu loolu la naa leen ko jot leen la ci dolliku mooy bëgg nañu béréb yooyu yi nga xam ne moom la ñuy jànge ci diggante jàkka yi ak jumaa yi ak béréb yi nga xam ne fi la mbooloo yi di daje képp koo xam ne mën ngaa jàng ba mën ngaa sikkar ak loo mën a def si xeeti toroxlu nga di ko def ko ko képp koo xam ne mën nga ko itam nga togg aw ñam mbaa la nga mën ci xeeti taraanga yóbbu ko ci béréb yooyu ñuy jànge suñ ko defee ànd ko tuub gu sell jàpp ne ne suñu borom danañu nangul te danañu geesu ma dem te njàqareel xol yàlla mën na koo teg yàlla na ko tegg ci jàmm ci barkeb sëriñ bi sëriñ neen sëriñ bi nee mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te yaakaar ne lii dana ko ànd ak bokki jullit yëpp ak boo waa réew mépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyoo tey siyaar di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan suñu borom mu boole ñu bal ci sof ci kàddu kilifa yi gannaaw bi ndigal li bàyyi ko ci Sëriñ Tuubaa Seex Sidil Muxtaar dem ci cheikh Mahamadul Muntaqa mi nga xam ne mooy jëwriñam àgg ci cheikh Basir mi nga xam ne mooy kaddoom te mu digal cheikh Mahamadul Mamoun al imam mu yëkkatil ko kaddoom kon defe naa ni ko kilifa yi waxe dégg nañu ko muy ndigal loo xam ne gannaaw bu nekkee na isnuna am ci jullit yépp sëriñ bi yeesalaat ko feddli ko ngir waxtu wu nekk ittewoo gi mu ittewoo mbirum jullit yi te loolu di ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man lam bi umuril muslimina jullit yëpp tollu ci tiis ak njaqare sëriñ bi fàttali ni ko sëriñ Basiiru waxe léegi suñu borom garanti yi mu joxoon jullit yi benn bi mooy li fekk yonent bi sallallahu alayhi mi ngi ci biir jullit yi mën nañoo am xel mu dal ci ne yenn yi du xew li ci des mooy li fekk jullit yaa ngi xam ne am nañu borom ñu nangu loolee di ko tuubal di ko jéglu ku ne xam ne nag kon bu njëkk bu muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu borom tuxal na ko kon benn garanti rek moo fi des mooy nangu ne ay jaam dellu ci suñu borom tuubal ko jégglu ko te jaare ko ci téeréem bii nga xam ne moo bàyyi ko ca moom tey dellu ca moom muy alquranul karim sëriñ bi wax nag ne kon ni ki altine ji digal na ko mbokki taali mbokki taalibe yépp waaye sàkku ci mbokki jullit yépp ñu àndandoo ko tuubal suñu borom jéggalu ko suñu xëyee ci jàkka yi ak jumaa yi ak mbooleem foo xam ne mbooloo mi dajee na fa tam jàppandi ñu xëyee ko ba tisbaar jiital euh, tuub jéggalu sàkk ay sarax ak nag jàng alquran euh, euh, tuubal suñu borom jéglu ko ñaan ko xéewalem yi mu yor te doyewu ko dara mu bañ a sukkandiku suñ tooñ yi ko wàññiwul dara ba sottil ñu xéewal yooyu yi waaye jiital ca loolu it suba ci dibeer gi euh, sëriñ bi bëgg na ci digal ko mbokki taalibe yépp sàkku it ci mbokki jullit yi fépp fuñ ko man ci jàkka yi ak jumaan yi ñu dajee def salaatul istisqa muy jullik baaw naan loolu it defe naa ne ñu bari xam nañu ko ndax euh, ñi nga xam ne ci lislaam ñi jàng ñëpp jàng nañu ko ni ko sëriñ Mahamadul Mamun waxee mu bokk ci sunnatu mu akkat yi sunna su feddlikoo feddliku ni nga xamee ne julli iit muy korité ak tabaski wala suuf muy buñ jàppee weer wala jant bi julli gii tamit genn la ci yooy yi muy su lu mel nii amee ñu toll ci waxtu ndox war a wàcc wala saa bu jafe-jafe amee ci jullit yi rek benn ngi nii ci ngànnaay yi loolu nag sëriñ bi wax ne suba ci dibeer ji euh, fuñ ko ci mënee nañ ko def nga xam ne loolu jox na ni nga xam ne noonu la baaxoo woon ci yoonu murit te baaxoo ko ci lislaam waaye ñu dikkee ci yoonu murit ci nekkuk sëriñ bi ba ci Cheikh Mahamadul Moustapha ba tey jii saabu bu jamono yii masee am sëriñ bi joxe ndigal ca Gede loo ca Cheikh Moustapha ba tey jii sëriñ bi yeesalaat na lool yi Gede defagul nañ ko ñaari yoon ci alxamis jeewees ak altine ja te bëgg ñoom saa bu altine ak alxamis ju dikkati ñu def ko ndax xam nga ne ndigal la dañ ne yukar dañ koy baamu ba saabu suñu borom bi indi xewal kon suba sëriñ bi bëgg na barab yépp jàkka yi ak jumaa yi ñu maase ci def ko koo xam ne loolu jampoon na ci moom it su altine ji weesoo bañ jàng alxuraan ba noppi waxtu wuñ ko mënee def ñu def ko ndax ñaan suñu borom moom eh, àndandoo waaye waxtu wu nekk warees na ko caa def kon muy ñaari ndigal yu ñor yoo xam ne war nañ ko fàttali ko te bàyyi ko xel loolu nag kon ci turu rabita bi tàmbalee fii ci biir Touba. mi ngi ci turu kilifa yi ñu ngi woo mboolem sëriñ daara yi ñu soññi donga yi donte ñu ngi ci bër sëriñ daara bu dégg kàddu gii na daal jokkoo ak ay goneem ñëpp bu altine ñu xëy si fii ci jumaa ju mag ji bu dee ci Touba jumaa ju mag ji la ñu tànn ngir ñu defe ko fi su demee ba fees nag beneen barab bu jege te mënees ko caa dolli waaye ndigal li fii la tàmbalee ci jumaa ju mag ji ci la ñu koy defee di ci woo it nag mbokki taalibe yëpp di ci woo kilifa yëpp ñu maase ci ku xëy altene ñëw fii ci jumaa ju mag ji ñu wéyal fi ndigalal sëriñ bi euh, euh, noonu yi nga xam ne noonu la ko santaane su dee ci li nga xam ne génn na Tuubaa it mbooleem jëwriñi rabita bi ci barab yi euh, sëriñ Basiiru nee na sëñ Basiiru sëñ Abibu nee na ci tudd sëñ Basiiru sëñ Fadilu ak kilifay rabita bi mi ngi leen cey woo ñoom ñëpp kenn ku ci nekk moo fay jëwriñ ca mbooloo ma na ko jotal te taxaw ca moo xam muy ci salaatul istisqa bi di suba ci dibeer ji moo xam muy altine ci njàngum alquran mi waaye ñi nga xam ne ñoo nekkal sëriñ bi it ci barab yi ci biir réew mi yépp moom it ñu ngi leen di jotal ndigal lool yi te di leen ko fàttali ñu woote ko te soññe ko bu baax a baax a baax a baax euh, di ko yaatal it ci mbokki jullit yépp fu fi kilifa ak diine nekk sëriñ bi nee na diine ji nga xam ne moo ñu boole mi ngi jaar ca turi diine joojee di ko sàkku ñu ànd toroxlul suñu borom jéggalu ko ndax aljamaatu rahma te yaakaar na ne su ñu ko defee yërmande suñu borom dana wàcc kon daal loolu mooy ndigal li nga xam ne kilifa yi waxoon nañ ne nañ ko jotal te soññee ko te fullaal ko muy balante àq bu wér ci suñu diggante tuubal suñu borom bu baax jéggalu ko sàkk ay sarax sarax yi barab bu nekk buñ ko defee ñu yóbbu ko ca barab ba néew doole ya fa nekk ñu jox leen ko toggit ay ñam yóbbu fa ndax ku ne xam ne ni jamono doxe bu lu mel noonu saa buy am néew doole yëpp danañ jóg fu ñu dem nañ leen ca bégal nañ leen berndeel kon loolu it ñi nga xam ne yàlla may na leen nañ ko bàyyi xel rawat na bu dee fii ci Touba luñ gën a mën a waajal ci ay ñam yóbbu indi ko ci jumaa ji ak beneen barab boo xam ne ña ngi ko fay defee su dee ci bitti dëkk bi feneen fu mu doon ñu defee ko fa noonu yi fañ koy defee ñu fa sarax ya yóbbu fa ñam ya xëyit ñëpp ànd dem fa bu ko kenn bàyyeel ñuy jàng kese ndax tuubal suñu borom ak jéggalu ko ku ne mën na ko ca na mu kon ñu ngi ciy woo ñëpp di yaa di ci nit ñëpp te yaakaar ne suñu borom dana yeesalaat yërmandeem ak njëggalam ci ñun ci barkeb sëriñ bi salaatul istisqa boobu ñu wax léegi nag te noonu ma waxe sëriñ bi ci nekkuk sëriñ bi ba tey jii mu yàgg cee jox ndigal waa Gede Cheikh Mouhamadul Mamoun wax na ne eh, julli wi ni ak xutba bi lépp a ngi ci moom dinañ ko copie it képp koo xam ne soxla na ko bu ci jokkoo ak moom wala bu ci jokkoo ak ñun des nag ko jotal insha allahu taala kon Cheikh Mouhamadul Mamoun al imam waajal na ko dina ko copie muy julli gi ak xutba bi képp ku ci jokkoo ak moom insha allahu taala dana la ko laabiir. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf sëriñ Xaadi Jaxate kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ndigal laa ngi noonu. bàyyi ko ci ku sell ki Serigne Touba Serigne Sidi Muxtaar xalifa général kullu murit mi ñëpp di ñaanal fan wu gudd ànd ak wér-gu-yaram ba mu mottali yéeneem ci liggéeyal Serigne tubaa jaar ci Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir ñëw ci Serigne Bachiru Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Abdoul Khader mi yore kàddu Serigne bi mu jox kàddoom nag Serigne Modou Mamoun Boussa ndigal li jëm ci waa rabita bi ñu ànd ko ak waa rabita bépp ndigal li ni ngeen ko déggee mooy dimaas juróom benn fan ci aw kori ñu def salaatul istisqa muy jullig baaw naan ak fu ñu ko mën di defee ñëpp maase def ko altine ji di juróom-ñaari fan ci weeru kor yi eh, ñu joxe ndigal fii si jumaa yi Tuuba ñu daje fi jàng alquran tuub dellu si yàlla sàkk ay sarax bu jumaa ji feesee tam fu ñu ko mën a def baax na li des si biir réew mi ak bitim réew nag fu jumaa nekk wala jàkka nekk fa wala bérébu euh, kër sëñ tubaa wala bérébu jaamukaay yàlla jurit ya fa nekk am nañu ndigalul daje fa jàng alquran sàkk sarax tuub dellu ci yàlla ñaan yàlla mu wàcce xéewal ak jàmm ci réewum senegal ak ci réewi jurit yépp kon ndigal laa ngi noonu jurit yépp ñoo ngi maase nag di ñaanalaat Serigne Touba Serigne Sidi Muxtaar fan wu gudd wu ànd ak wér yaram ba mu yàgg ñoo jox ndigal ñu yàgg koo jëfe wasa jërëjëf euh, ñu dégg kon mbokk yi téléspectateurs yi kaddu yi nga xam ne mu ngi bàyyi ko ci Serigne Mouhamadou Mamoun Bousso di ilimaanu raate bu jumaa ji jëmoon ci ndigal li nga xam ne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides digle na ko mu jëm ci ñaari fànn benn bi di suba ci dibéer gi jullik baaw naan ngir ñu def ko ci dëkk bi ak ci réew mi fépp foo xam ne mën nañ ko faa def ñaareel bi di bisub altine bi bisub ñaan boo xam ne njàngum kaamil bi ñu ngi koy woote ci jumaa ju mag ji dégg nañu léegi leeral yi nga xam ne sëriñ Xaari Jaxate def na ko ci ci ni nga xam ne noonu lañ ko fa yéene doxalee sëriñ bi itam diglewaale ci ñu boole ci tuub ak sàkk sarax ak jéggal suñu borom ak toroxlu ko kon nag mel na ni lii mooy li nga xam ne dégg nañ ko muy kàdd yi nga xam ne jóge na ci sëriñ Mamadou Mamoun Bousso mu jottale ko muy ndigalu Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des kon ndigal laa ñun ñi nga xam ne nag ndigal rek moo ñuy jariñ ñu góorgóorlu ci defee ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi diglee buñ ca yeggee muy kon jullit baaw naa li nga xam ne suba la ci dibéer gi ak njàngum alxuraan bi nga xamante ni ci bisub altine bi lay doon. kon nag euh, ñuy dellu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom Cheikh Sidi Mokhtar te lépp lu mu yéene ci liggéey Cheikhul Khadim mu matale ko ni mu ko bëggee yàgg ñoo digal ñu defe ko ni nga xam ne. ni la ko santaane ba mën ci làq ngërëmal yàlla suñu borom kon lii leen seen télévision Al Mouridiyyah jëlee woon tey ci jumaa ju mag ji wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu